arbitre sifflé na final bu mag bi war dox ci diggante Serigne Ndiaye ak ki nga xam ne moom mooy général bu Malika Serigne bu Faas moo ñu wan ginnaaw général bu Malika moo ngeem moo moo daan sànq Sélémélé ci demi-finale daan ki nga xam ne moom mooy njaga bu Balla waaye ñoom ñaar ragal naa ni seen combat day gaaw day gaaw ndax miinante nañu xamante nañu aca njaga doole Serigne Ndiaye kuy daan ak luy xew mu ngi lewtoo lewtoo bu dib ndeysaan mbay lu ma ngay way arbitre sible na nee na leen ngeen bëree arbitre nee na nañu bàyyi naq saala bi te bëree ak tapale bi wax na dëgg Ndiaga Dollé Général bu Malick saison 2019 2020 ak Jax Production hey laaj nañu hey Général loo bëgg Serigne Ndiaye bunkal la xale la général Serigne Ndiaye eh eh général da koy wër da koy wër eh Serigne Ndiaye général da lay ñaan Serigne Ndiaye giraane eh Serigne Ndiaye mën na bëre Serigne Ndiaye mën na bëre Cheikh Omar waa général aussi n'était pas un peu trop rapide dafa doon gaaw tuuti général dafa doon gaaw takk yooyu day gaaw. file woon na ko ba koo takk war noo ma eh eh Serigne Ndiaye ngoo force général da ngay daanu eh eh ab de force doole doole doole ñoom ñaar rëpp nañu lu xew eh Serigne Ndiaye jël ko jël tournoi bi daan na général Malika jeex na.